asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu mbokki internet yi bàyyi xel sn xibaar point com sn xibaar tv ñu ngi leen di nuyu di bu baax amati mbégte ñëwati yéen ak plateau yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy faral di def lépp muy jëm si waxtaanee yi nga xam ne ñoo toppoon suñu yaakaar ja Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul wante dañuy jiital si nuyoo bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké xalifa général kulu murid di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te ba yéen bu mu am ngir liggéeyal ko Serigne Touba mu àggale ko ban mu ko soobee ñooñu leen koy ñaanalee njabootu Serigne Touba gi rawti na Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Saliou ak mboolum njabootu Serigne Touba gi yëpp. tay nak ñu am mbégte ak yéen dalal njabootu Serigne Bassirou Gueye ñuy wajjal benn bis bu am solo ñu japp ko le 8 février bi ñu jëm xamna bu ñu duggé ci biir waxtaan yu dëgg dinañu xamal bis bobu nonu dalal ci ñi nga xamni ñoy ñooy ak njabootam ñu mën ci ràññee Serigne Sidi Mohamed mi nga xamni ni mën nañu wax ni mo fi teewal khalifa bi moom itam mi ngi ci plateau bi ak Serigne Soda moom itam si mi ngi ci plateau bi ak Serigne Moustapha Diaw moom itam mi ngi ci eh, Serigne Moustapha Guèye moom itam mi ngi ci mi ngi ci euh, plateau bi ak Serigne Modou lépp rek ngir waxtaane dunduk Serigne Bassirou Guèye jaar-jaaram doxalinam Babacar moo ne ci caméra bi bala may sori rek damay jox leen ñu nuyoo ak suñu mbokk internet yi bu ko defee ñu daal dugg ci biir waxtaan bi damay ubbee ki nga xam ne mooy kilifa gi mooy kilifa jataay gi muy Serigne Sidi Mohamed mu nuyoo bu ko defee ñu doog a jàll ci ñeneen ñi maa ngi lay ziare sëñ bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu te rafetlu seen liggéey ak jataay bi nga xam ne yaa na am nañ ko ak yéen lépp ci liggéeyu sëriñ bi mu mel ni dañuy jub ci bis bu mag ñu ngi ci bisu suñu jàmbaar ja suñu waajur sëriñ Basiru Géey wërkuñ ñu jëm ci di ko màggalal ca Daaru Géey tam gën a siiw ci wërkuñ ñu àndoon ak sax suñuy jarbaat ak ñenn ci magi taalibe nga xam ne ni dañoo jaayante woon suñu waajur wa bu dee bokk yi bu ñu tuddee sëriñ Soode mi comme ni nga ko waxee ci kër gi la tax ndayam sëriñ Basiru Géey ko jur bu dee suñu ma soo jëwriñ mais léppam sëñ Bass Guèye la. moo du jaw mais te ngeen koo xam ci sëñ Mat Ba Diaw. Mhm. moom itam léppam sëñ Bass Guèye la. Mhm. kon nag bu ñu fi teewee. Mhm. war a fàttaliku kenn ci jàmbaar yi mooy sëñ Bassirou Guèye. loolu ñun dañ ci bëgg te leen ci sant. ci seen sit bi. bu defee yàlla ñaan leen yàlla. yobulen pengen ba ngeen am ci ay ay télé. xam di saaro ci réew mi. amiin ak sëñ Tuuba. ñu tàmbalee ngir ñu nuyo ko rek. Mm-hmm. ci jotaay bi. <laughs> nuyo bi amna solo jere jërëjëf serigne bi damay jox jawrin ji rek muy serigne Moustapha moom itam mu nuyo ak suñu mbokki internet yi. asalaamaaleykum wa ko ñu ngi di te ñaanal sëñ Moustapha bi nga xam ne mooy defal sëñ bi bi dinañ ko yàgg ci ànd ak moom liggéey mm-hmm. Mm-hmm. yàgg ko def mm-hmm. salaamaaleykum da nga may jotali itam mu nuyoo maa ngi lay ziar ñu ngi siyaar si yàlla li ñu ngi ñam di sëñ Cheikh Fall sëñ Cheikh Fall ñëpp ak waa kër Cheikh Baaw waaw ñu bëgg waxtaane ñu kenn ku ne mën ñu sant nañ leen yéen yéen yéen ñu fi woo ñu tam li ñu fi yéene lépp la suñu xel dama ko def comme ndax ku yombax wane la ya ndax mooy yarekat la jubbantikat la ñàkkal la kon ngërëm boo ko ne sëñ bés bi ak sénégal bi yëpp ak àdduna yëpp xam kon yàlla nu yàlla jërëjëf kon dañuy jox Serigne Sora Gueye moom itam bokk si kër gi bisimilah alhamdulilah mboolem ma islaam yi bépp di jiital ci nuyoo bi suñu yaakaar yi tey ak ëllëg ñoo xam ne fatul xam Cheikh Mouhamadou moo fi ko Sëriñ Géey mi nga xam ne mooy toog Géey ñu yaare Cheikh Souleymane Géey Sëriñ xam ne moo ko xalifa ko Sëriñ Malick Géey di ziyaara it mbooleem ñi nga xam ne ñooy njabootu sëriñ Bassirou Gueye bu ñu tuddee sëñ Moustapha rek mm-hmm. day mel ne tudd nañ ñëpp mm-hmm. euh, di wàcce suñu kàddu bu baax nag mm-hmm. toroxlu ci suñu nijaay suñu way jur Cheikh Sidi yi nga di koo xam ne way juróom euh, da koo yëkkati woon ndax moom dafa wax am suñ tubaab la ko jox jox ko Cheikh Abdoul Hakim mu yar ko tey jii kon bu fi teewee rek teewal na njaboot gépp sëñ Moustapha mi ak sëñ Mbaye bu ñu fi teewee teewal nañ jaboot yëpp waa xam naa dañuy nuyoo rek di nuyu ci kàddu sëti sëriñ Bassirou Gueye mm-hmm. suñu déwén sëñ Moustapha Samb mm-hmm. ak ka ca topp mu Cheikh Abdou Samad Fall mboolem membre sëñ yëpp mm-hmm. sëñ Assane mi nga xam ne teew na ci jotaay bi te ci plateau bi ak sëñ yëpp kon ñu leen di nga xam ne seen ndaw lañ dañoo fi teew ñu yónni ñu dëng rek ci man la waaye du ci ñoom kon dañuy daal di bàyyi rek ñu daal di liggéey. xam naa si yow lañuy des ñu dugg ci biir waxtaan bi bu ñu bëggoon a xam kan mooy Serigne Bassirou Gueye la ñuy wax. waaw xam nga Serigne Bassirou Gueye moom doom la ci Serigne Magueye Jama Serigne Magueye Jama di doom ci Cheikh Adama Gueye Cheikh Adama Gueye nag di muritu Serigne Touba di njëkk a jaayante ak moom ca Mbacke Kajoor ci taarix ñu ngi wax ni Cheikh Adama moom ñu ngi jaayante. ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ci ñi gën a siiw waaye sëriñ Mbégué Jam moom moom moo ab taawam sëriñ Bassirou Guèye nag doom taaw sëriñ Bassirou Guèye déedéet taawu sëriñ doom ci sëriñ Mbégué Jam amoon na mag bi ñuy wax sëriñ Abdou Samad Guèye waaye way juróomu jigéen ah, soxna Fat Samb mm-hmm. mooy way juróom bokk ak sëriñ Bassirou Fall alxuraan seen ñaari way juri bokku nday ak baay ni soxna Fat Samb ak soxna Marema Samb yaakaar naa lu ma si ñëw nga seen bii moom dana ko noonu la mu doon ko xam jambar la woon yo xam ci keppaaru Serigne Touba mën daana kan la gamé jamono ndax xam nañu wax ci taarix bi ñuy ngi ci jamono ci 1920 ñu wax 1922 waaye nag xam naa bu Serigne Sidi duggee ci biir dana gën a signe wala yooyu nga xam ne. moom moom la ñuy wax. waaye nag mi ngi yaroo ci keppaaru Serigne Bassirou Mbacke. ñu doomi Serigne Touba. ndax Serigne Bassirou Serigne Maguette Diama moo ko jox ko. te de koo xam ne ku jeexoon tàkk la ci Serigne am ba tax na nit euh, la woon koo xam ne doxin bi mu doon doxee ci yoon wi ku jafee xam ne ku jafee roy la lépp lu ñu tudd ci am murid daal mu ngi ci Serigne Bassirou. lépp loo xam ne it dañ koy melal ci am murit akub taalibe bi muy sëñ Basiru ndax ak taalibe ak moom mooy loo jur jox sëñ Tuubaa loo am jox sëñ Tuubaa jël sa bopp jox sëñ Tuubaa voilà jërëjëf comme leeral nañu bu baax a baax càllal ak sëriñ euh, Basiru Gueye dama damay ñëw ci yow sëñ bi sëñ Sidi nga gën ñoo leeralal bu baax ci càllal ak sëriñ Basiru comme ni ko comme ni ko sëñ Soora leeralee bu baax a baax ak lenn ci doxalin sëriñ Sidi waaw ndey euh, sëñ Bassirou mi leeral na ci Bassirou Sow mi leeral na ci lu bari noonu ma ko waxee ne it noonu rek la euh, sëñ Bassirou li gën a siiw ci ci guddoom 1922 moo ci gën a siiw ci guddoom mm-hmm. taarix nag dafay faral di wuute ci day wuute ak juddu mm-hmm. waaye li ci gën a séw daal mooy vingt 1922 mm-hmm. <coughs> waaw soxna Mariama sam mom muy wax itam moom soxna far sam bokk ndey ak bay ki jur seigne Basiru gey ki jur sëñ Basiru alxuraan loolu moom lañ ak seigne Basiru far alcorane comme ni bay Baye mi rek don leerale amoon na mag itam comme ni waxe seigne Abdou Samad moy tawop seigne Magee Jama mom moo seigne bass gey Géey ñoo bokk way way wajur wu jigen am ñoom ñaar ko bokk mu Abdou Samad ak seigne bass gey ñoo bokk waajur wu jigéen ñoo defandoo lepp itam sëñ Bass Dieye nekk ni jëmm joo xam ne nii xam naa ni buñ duggee ci di ci waxtaan eh, sëñ Moussa jëwriñ ak sëñ Mat ba di dinañ ko gën a leeral ndax ñoom moo leen yar. moo leen yar dëgg eh, di arab bi wax man adabaka kan moo la yar. Mm-hmm. waaye ñoom sëñ Bass Dieye leen yar. Mm-hmm. xaj na nag ñun ay takk neeram nañ. Mm-hmm. Eh, gëstu nañ ci tuuti rek waaye li ñu ci mën a xam ne ñoom ñoo ko gën a xam. la. waaye nit la koo xam ni daal amoon na li arab di wax xususiya. xam naa amoon na ak jagleel. ci diggam ak boromam. Mm-hmm. ginnaaw bi ko sëñ Maguette juree. Mm-hmm. sëñ Maguette Cheikh Adama Gueye jur ko Cheikh mm-hmm. Adama moom ku ni ko sëñ Soode mi waxee mu njëkk a ci sëñ Tuubaa ci Mbàkke Kajoor. dëgg la kooku loolu loolu rek dee na waaye nag ginnaaw bi mu amee loolu daa dem liggéeyal boppam ba am ceru boppam. loolu xam naa bu duggee ci biir waxtaan sax mag ni dañ ñu ko leeral ci cër boobu nga xam ne nii. amal na ko boppam nga xam ni suñ borom moo ko defal. ndax toll na ci jamonoom. Eh, yoonu murid bi doon bokkoon na ci doom yi. Mhm. nekkatu sax nekkatoon sax ñi nga xam ne nii. Mhm. ci bàyyi lañ ci doom yi nag bu ñu tuddee doom yi nag mooy. Mhm. mag ñi nga xam ne nii seen taaw yi moo leen jur. mel ni nga ni sëñ mu Moussa Fall. sëñ Maguette Jama. ñooñu seen bàyyi comme sëñ Mourou Moussa Fall Seex Ibra Fall ko jur. sëñ Maguette Jama kon seeni doom ci sët yi lañu lañu lañu doom. sët yi lañu doon dëgg la. waaye nag taxawaayam ci ci jamonoom. nekkoon taxawaay boo xam ne boo ko tuddee dañuy jàpp ni doomi Cheikh Adama Gueye ba fii may wax ak yow ñu baree bari ay jëfam tax na ñu jàpp ne Sëñ Bass Gueye doomi Cheikh Adama Gueye yemuñu sax jàpp nañu doomi Cheikh Adama Gueye waaye dañuy jàpp ne mooy taabu Cheikh Adama Gueye te nag daa bokk ci sëtim yi mag mm-hmm. ndax Sëñ Abdou Samad la bokkoon ndey ak bàyyi mm-hmm. te moom la wuuti itam mm-hmm. waaye Sëñ Abdou dafa yàggul ci xilaafa gi Sëñ Bass it xaw na am diir ci xilaafa gi waaye nag boo déggee ak yëngoom ak jëfam danga jaawre jàpp ni rek doomi si xaadama la hmm. waaye doomi sëñ Maguette Diama du taawam sax sëñ Abdou kii mooy taawam moom la tudd sëñ Abdou Samad hmm. ko hmm. te jógee yàlla ko yàlla yaram xam naa bu duggee ci biir waxtaan bi nag ah, dinañ ci gën a leeral moom ci aw yoonam ak nam daa doxee nam daa doxee ndax ci tënk rek daan naa naan su ma fi jugee de du jar kenn di ma tàgg kenn ndax doomi doomi sëñ Tuubaa ju ne sama doomam fa su ma fi jugee moom mooy tàgg ka fa nekk Eh, yoonu saa dex walla laa doxee eh, loolu itam du du du jaaxal ñu bari ndax suñ mhm. magee jaba baayam mhm. ci noonu la doon doxee mhm, ndax keppaari sëñ Tuubaa yi néewaa na ku mu fa yóbbu doomam sëñ Bass nag àgg na ci ba eh, fépp suñ magee jaba waroon dugal doomam dugal fa sëñ Bass Gueye dugal na fa doomam ba pare maanaam xam-xam bi ak njàng mi taalibe bi da ko nëbb woon ba ba mag ñi jaxasoo ak ñoom daawul wax dara ba jàpp ni ci sax xam-xam mi ci moom te ba mu waree jàngi jàngi na lu doomi soxna di xam lu ne xam na ko mm-hmm. waaye ak taaleem du ko nëbboon ba euh, du du feeñal xam-xam bi mukk mm-hmm. waaye yenn mbàkki mbàkki yi nga xam ne dañoo jaxasoo ak moom. Hmm. ko. xamoon nañ ko bu baax a baax hmm. saayir wa bàtt na. Hmm. xamoon wax rek. xam naa bu ci kanam a leer gën a leeral lu bëree bëri ci ci ne moom la nekkoon si njabootuk sëriñ euh, Adama Gueye bokkoon ci sëti sëriñ Adama Gueye wante boo ko gisee da ngay jàpp ne mooy mooy taawu sëriñ Cheikh Adama Gueye lépp rek ngir ak tolluwaay bayam dañuy ñew ci nga xamne nak ñoy ñooy jëwrin ñi parce que euh ñom ñi nga xamne ñoy yoro ci keppaaru Serigne Bassirou gay euh serigne Moustapha bëggoon bëggoon nañoo xam lenn ci jikko Serigne Bassirou gay assalamu alaykum Serigne Bassirou gay day ñun ñi moom yar li nga xam ci moom ak téli bu mat bo xam ne yemli ko kenn ndax mu leer li ngi ko xay and ak moom lepp mo na yaa mo na jangal a wana nu teel bi itam ku ne ku ne taxawal nu ko lu ma sa liggéey jënd ko sëñ Bassirou Mbacke dan daa sa ay ton yi ton lu mu mën na bari bari bari sëñ Bassirou Mbacke la ko ba sëñ Bassirou Mbacke jóge bi lu mu liggéey jébal ko sëñ Moustapha Bassirou loolu xam nañ ko na ànd ci ak képp koo xam ne ànd ngaa sëñ Bassirou de war ngaa xam ne sëñ Bassirou ak taalibe bu mat moo nekk ak moom mm-hmm. ba sëriñ sëpp yu bari daañu ko daa mm-hmm. ndax ne man am na am na gan gan koo xam ne sëñ Abdoulaye dafa woo dafa dafa woo sëñ Moustapha Bassirou na ko mm-hmm. damaa bëgg ay taalibe yoo xam ne ñoo may taxaw loolu la ko loolu la ko wax teel bi yoo xam ne noonu ah ma taxaw mu ne ma dem seeti Basiru Jéy mu na taxaw taxaw ko ñu daal seet suñu blaat wër ko nii ba li mu bëggoon lépp am mm-hmm. la wax ne ko la nga mën wax de lépp gis naa ko ci wàllu suñu Basiru mm-hmm. kon suñu Basiru ba fii mu ne képp koo xam ne nii am ci doom parce que ci doom bii mm-hmm. wax na ko ndax moo ne na ko ndax maanaam kër suñu tubaab bu ne doom nga dana su ma fi bàyyi ko ñoo may tàggee mm-hmm. waaye ndax kër sëñ sëñ sëñ Tuubaa bu ne sama doom ko loolu mm-hmm. tam sëñ bés mm-hmm. daal képp koo xam ne ànd nga ak moom war ngaa bon tool bi war ngaa nangoo liggéey nangoo muñ ndax sëñ bés ku bëgg mbokk la ku xam diine la ku jàngale itam waaw ku bëggu diine la mbokk mi yëpp nag toppatoo na leen ni nga xayma ñëpp la bokkal baay bi mm. kenn ku ne sëñ Basiru teral na la mm. waaw moo sa sa soxna sa aaw sañ Basiru ko def mm. ba ci man mii moo ma jox sama soxna moo ma jox lu ma liggéey ma wàcc ci daal kon laa xam ne moom di ko liggéey ñooñu ñaan dara ci ah, na ko yàlla yokk ak leeram ci dara Tuubaa yàggal na fi te doom yi ñàkk suñu kanam ci dara ji sëñ Tuubaa noonu ñaan ñu yàgg fi te ànd ak wér barke sëñ Tuubaa boo ñu doon ñëwal si sëñ Basiru Gaye ak yaram ni mu doon tàggatee ay taalibeem wala ay magam parce que wax nga léegi ni ci keppaaru Serigne Bassirou Gueye fi nga yow te ku nga xamoon ne mag ñi nga xam ne ñoo toppoon Serigne Touba tërbiyee yi nga xam ne ñoom la doon tërbiyee seen i njaboot ak seen i taalibe fan la ko sëriñ Bassirou jaaroon waaw mu dee Serigne Bassirou lu fuy waay di jaaral nit jaaral la mm-hmm. ndaxte li mu digaloon la mooy saa su ne ni nga nekk ca tool mm-hmm. taalibe bi itam képp koo xam ne mas naa xuloo yow yaa taalibe la xuloo yow wala mu laaj loo xam ne ci sëñ bi la jëm waaw ndax moom lu mas a liggéey sëñ bi la du sax daaw sonal kenn ci lu sëñ Basiru rek bu mm-hmm. ñaan loo xam ne sëñ Basiru mu santaane loolu rek ci mm-hmm. xam ne sa kaw mm-hmm. loolu rek laa xam ne sëñ Basiru moom dana ci lu mu lu mu diglee lu ak ak ak taalibe mu am liggéey lu mu liggéey joxe ko liggéey sëñ Basiru waaw jërëjëf joxal sëñ Modou Diaw moom itam mu gën ñoo ko si loolu parce que gën nga ñoo leeralal kan mooy sëriñ Basiru Gaye wante keppaar gi nga xam ne fa la nekkoon muy keppaaru sëriñ Basiru Mbàkke Mbacke wax nga ko léegi muy taalibeem ak pastel bi nga xam ne wone woon na ko ba lu baree baree bari sëñ Basiru daan na ko def ci moom moom képp moo ko si doyoon euh, sëñ Moodu da nga may ñëw cofal ma si kàddu yi nga xam ne fii la sëñ Moussa Ba yam rek nga ñëw si lenn si jikkoy sëriñ sëriñ Basiru Gueye ak ni nga xam ne noonu la doon tàggatee ay taalibeem ak ay njabootam waaw salaamaaleykum sëñ Basiru Gueye day mbiram comme li ko sëñ Moussa mi wax sëñ Sidi moom mbiram ab yarakat la xam nga luy jikko yarakat mooy da da koy ñemeel sa bopp ba bu soxlaa wuti la dem wax la soxlaa mm-hmm. da nga koy wegul sa bopp ba foo toll sa xel ak sa xalaat mm-hmm. ci moom lay nekk mooy yarakat noonu lay mel mm-hmm. noonu la sëñ bi si meloon amul benn doom dong bu mu yar te boo ko soxlaa da ngay wut intermédiaire ci moom déedéet amul yow yaay demal sa bopp jub ko mu ne la loo bëgg mu nga ne ko nangam nga wax ko bu dee lu mu war a def mu def ko bu ko dee lu ko kenn war a def mu def loo waaye nag meloon na ci nu mel ni ni ni ni ganaar ragal ceel ceel yi mhm. meloon na ko ci nu loolu mooy ab yarekat dëgg dëgg dëgg mhm. sëñ Bassirou Gueye ab yarekat la mhm. loolu nag da koo mel ne fa mu ko doon jëlee ci sëriñ Bassirou Mbacke ci la ko jëlee ndax lewat na ci biir ba mën a lijjanti lépp dëër na ba kenn du ko yàq mm. sëñ bi si moom mm. ak taalibe nag dañ koy roy ci moom mm. ndax mu dajale noonu de nenu man de néewuma seexaarmaay sama maam néewuma sëñ ma ngay jamaa mujj xam naa fañ ko jële ji woon dem naa ko jële ji ba ma demee it damaa bàyyi leen ca ginnaaw wutal sama bopp di am na lu lu nekkoon ci tànk bi ñu di ko waxub liggéey ñaare bu koy waxee da koy wone ba fexe naa ba am fa lii ab liggéey léegi nag ni mu mel ci ni ma leen koy mën a misaale yéen dongo yi mooy ngërëmul yàlla la lu la nit ba bu la nit meree ba gaañ la ci moo la yokk lii moom nag sëñ Basiru wax ko gone xam na ko dëkk ba mu nekk di wurkuñ hmm. ak ku ko ku tasi sëñ Basiru yi hmm. da xam ne góor yàlla dëgg ngi mm-hmm. xam nga góor yàlla mooy mm-hmm. amul mbàkk daf daan daf daa wax ne man koy golo laa yor xaw ma xaj bu yooyu loolu mooy nag mm-hmm. mooy mbàkk mbàkk moom laa gis muy mu mu fonk mbàkk mbàkk ba jar mu mu di ko wàccal bang moom toog di ko ci teg loolu lépp la koy waral mooy kenn ku ci ne day wax ne kenn ku ne fa nga faloo boo ko fàttiwu doo folle waaye soo ko fal boo ko wàcc fàttee la lay folle doo ko yëg ah, moom nag ak taalibe ni mu koy jàngalee mooy loo mën a mel ak koo mën a doon boo amee taalibe fonk ak koo mën a doon ak loo mën a yor boo boo boo boo amul taalibe xamul yowee kat ci moom de laa gis <coughs> mu ne moom ñaan na boromam doomam ab taalibeem ku nar a bon du ko fi bàyyi ku nar a bon du ko fi bàyyi ñaan na ko yor yàlla ba may ko. mu mel ni moom sëñ Basiir moom lépp. waaw lépp mu nekk waaw ci taalibe la ko. ci taalibe ko tegoon li mu ko tegee ci taalibe mooy dafa wax ne man de fi ma ko doon wute am na ko ma ko doon wutal am na na ma ko hmm. kon loola sëñ Basiir bi ab yarekat. lii lu mu ci duggul ngir nun ñiy wut ci moom nu xam ni nii wutee xam ni ñuy wutee dëgg la ndax xam na bari waana nit ki li nga wut ba am ko hmm. yoon mbedd mi ngi koy teg hmm. pakk ya fa nekk hmm. ak la cay gàllankoor da koy won da koy won dëgg la soo ko ko wonee mu mën caa tegu bu ko defee fu mu toll ne ah sëñ bi de neewoon na ma fii bu fi tolloon naa nga ma nga fi nga mën koo jéggi naa nga ko jàll waaye bu la bàyyee nga topp ci moom rek euh, du sotti. du sotti mm. mais nag la des mooy moom ci wàllu boppam mm-hmm. da daan wax ni taalibe du ma ne ko jox ma lu ma lekk waaye jox ma bu jox sëñ bi mm-hmm. sañ naa ko. sañ naa ko ndax moo moo tax ndax lii julli ak koor li baax baax baax jëf ndigal moo gën a. jëf ndigal moo gën a. loola nag ndax fekkoon nañ fi julli fekk fi alxuraan fekk fi lépp. Mm-hmm. waaye nag lii nu am musiba am. kon nag nit ki bu amee lu mu lu mu loo xayma ni defe nañ ne woon wërta mën a am. soo ko amee da nga koy fonk. da nga koy fonk dëgg la de. tii ba guur ku li muy jege jege jege euh, sëñ Moustapha ngi nii. Mm. ak ñeneen ñu mel ne man. Mm. ñetti ñeenti kilomètre. Mm. ci mi. fanaan nañ ci ca ca taal foofu ba tay. te kat waxut moom day fanaani bàyyi taali bi déedéet day dañ koy wër mu tëdd mu taxaw mu tëdd seen bi ci biir. Mm-hmm. bu ko defee bu sëñ Basiiru julli jee àjjum ah, sabla julli jee fajar mm-hmm. ñu ne ko mooy sa waa ji di ci àll bi la fanaan mu ne ah daa di sëñ Bas sëñ Basiiru daal yomb fajar su lool daal di egg si daal di ree daal di Basiiru foofu naan mu ne ko fii mu ne ko ah mu ne ndax li may def yëg kon du ma dem te yëg kon loolu lépp mm-hmm. ak taalibe la fay jàngale ndax wut kuñ ak dama la yow kenn ku fa demul it ñi may wax ci rajo bi yëpp de xam nañ diggante wu ni mu tuute man na dem egg fanaan fajar mu ñëw mm. waaye day mel ne kon li mu koy liggéey loolu ñoru ko bu mel ni sàmm gi doon sàmm taaliba moo tax kay foofu te jógee foofu fii liggéey ba amul moo tax bi mu ne ñun mm. taaliba yi mu yar lay mm. suñu xëyee sax liggéey jot te néew ñu ne liggéey hmm. suñ fi dugg daal. ndax nit moom lu mu yaroo lu ne rek yaroo da ko loolu lay topp ah euh, nan yemandi foofu hmm. dëgg la daa ma ne waxtaan bi am na solo baax a baax hmm. parce que gën nga ñëw ñëwal si taalibe si taalibe ak sëñ Basiru sëñ sëñ Basiru Gueye wax nga ko léegi euh, li nga xam ne wane na ko parce que nit ki boo nekkee ci keppaaru sëñ Tuubaa lenn kese lan lay mën a ràññee mooy mooy ak taalibe te sañ Basiru maanaam dafa jaay njuraleel gi euh, sët bi nga xam ne nekkoon na ko sëtu sëtu sëñ Adama Gueye wante loolu lépp da koo tegoon ci suuf mm-hmm. dox si dox si ak taalibe te loolu bu ma déggee say wax loolu la tàggatee ay taalibeem mm-hmm. ba si ay njabootam jërëjëf après dinañ dinañ ñëwaat si yow ñu jox sëriñ bi rek sëñ Soora moom itam mu gën ñëw ñëwul nag si doxaliñu sëñ Bassirou Gueye si biir njabootu sëriñ Touba wante ci biir njabootu sëñ Adama Gueye waaw sëñ Saali bi sëñ Sidi suñu bay jur yi suñu sëñ Moustapha mm-hmm. nga xam ne sëñ Moustapha jëwriñ lañ ko mm-hmm. tuddee mooy mm-hmm. mbokk ci sëñ Bassirou yi jaay am mbokk ñu jënd ko taalibe sëñ Luuba Jaw ni am ñoom ay mbokk am nañ ay taalibe ah, wolof nag dafa wax ne loo xam-xam Masamba Masamba Masamba gën naa xam mbokkam dëgg la de ñoom daf leen a daf leen a yar koo jur nit ka la man daf ma ci dama cee sëtu waaye nag daanaa gëstu ci moom ndax ku ma ñor la yàlla damaa nattoo la ko ñor moo ma ñor. moo ñor mooy koo mën a doon ak taalibe rek ma ñor. Mm-hmm. waaye ni ko waxee nii ak taalibe koy jàngatee. Mm-hmm. Ah, day day lëkkaloo ak taalibe Seex Seex Adama mm-hmm. ma sos yoon ndax ba mu ci Sëriñ Tuubaa dafa gàddaay daal ni ah, gàddaay dellu fa nga dëkkoon bokku ca. ñuy wax Daaru Gueye. bàyyi mbal ko cosaanam. bàyyi dëkk cosaanam. dem indi rakkam Sëriñ fi jógee it léppam sëñ Tuubaa ko taxaw moom it sëriñ ma ngay jamaa fi desoon ndax bu ñu fi jógee sëriñ bi euh, ci saa yu sëñ ma ngay jamaa dafa tax ko bëri waaye sëñ ma moo ko kii ba mu ñëw jox moo ko moom ba sëriñ ba sëriñ bi mu jël ko hmm. sëriñ bi def ci moom lépp hmm. yàlla ma ngay jamaa boobu gépp ci hmm. keppaaru sëriñ Tuubaa la ñu ganee jamono ndax sëñ Tuubaa mu fi jógee le vingt mille euh, neuf cent vingt sept moo ko géey moom sax Euh, ñu ngi ñaanal suñu maam Serigne Modou Gueye di ñaan yàlla dolli ay leeram. Mm-hmm. ñu ko fi mujj a euh, ci 1983 ba 2019 bii nga xam ne la laax mm-hmm. ñu koy ñaanal yàlla mm-hmm. xaare ko àjjal ñu koy fàttali bu baax ci ci bés bi ñu ñaanal suñu mbokk yi nga xam ne daw la ñu yëpp euh, suñu Moussa Gueye suñu Mohamed Gueye suñu Xarim Diop nga xam ne ñun tamit ci sëriñ Bassirou Gueye di doon ñu ko doon ko sëriñ Abdou boo ko seetloo kon day da man mën ci toolu Sëriñ Tuubaa la gane jamono. ci toolu kon ni mu mel du hasard. léegi mm-hmm. la de ku sa bàyyi koo xam ne Sëriñ Tuubaa ko yar sa maam Sëriñ Tuubaa ko yar yar sa bàyyi. Mm-hmm. sa bàyyi juddoo njëkk juddoo Tuubaa. Mm-hmm. Sëriñ Mbacke Diama mooy njëkk juddoo Tuubaa moom njëkk a feeñ Tuubaa ci taalibe Sëriñ Tuubaa ci taalibe ci njabootu Sëriñ Tuubaa. tey saa si Adama Gueye loolu kon mënta xam dul yàlla ndax Sëriñ Tuubaa ab xamalekat yàlla la woon coow lee bëri rek kenn ku nekk di wax waaye coow lu bëri bëri Sëñ Tuubaa yàlla rek ko ñoroon yàlla kese ko ñoroon dëgg la nii mu yar hmm. boo gisee seenu melokaan hmm. euh, jurut ngay laaj kuy sëñ bi hmm. dama ne la sëñ Sidi boo ko seetloo daanaka mën nga ne ci caab yi bi muy dem moom a batale am na ci ku ñuy wax sëñ euh, Abdou Guèye Abdou Cheikh yaakaar naa bi muy dem ak bi sëñ bi bi ñu gën a jamono ak bi sëñ bi laax la damaa xam xam moom bi yaakaar naa ginnaaw bi sëñ bi demee la la feeñ mm-hmm. waaye daf koo batale woon ne ab jarbaatam da koy warmaale sëñ bi baax mm-hmm. ba léegi Cheikh Abdou Mbacke moom sëñ Cheikh Abdou Fall moom sëñ mm-hmm. nañ ko jox Cheikh Abdou Mbacke Cheikh Abdou Fall laxasu laxasaa yoo ba ñu yeeyu ko am ci tamit ci jigéen ñi euh, ku ci caatum soxna xam naa sax ku ñuy wax soxna Ndeye Fall mooy caatum jigéen mooy caat ci jigéen soxna soxna Oumy Fall mm-hmm. waaye li ma gis njabootam bi jigéen ñi lépp mm-hmm. ñi ma ci mujj xam nga mm-hmm. jiitu nag xaw ma leen waaye ñu mujj ñëpp doomi sëñ euh, euh, sëti sëriñ Tuubaa wala mu jox leen doomi sëñ Tuubaa ñu yar moom woon sëriñ Tuubaa ci boppam ba nga xam ne mboolem taalibe boo xam ne sëriñ Tuubaa da dogal na ak ak nosam nekk ci sëñ Bassirou Gueye sëñ Bassirou Gueye loo liggéey saw ñàq boo ko laajoon mu war nga fi ko dugal ci kër sëñ Tuubaa ndax moom bu mas a liggéey ne ko sëñ Moustapha wax la def da koo daal yóbbu sëñ Bassirou Mbacke kon kooku diggante ak i taalibeem amu ci aw lay indi mm-hmm. ndax luñ commencé jox jox na ko sëñ Tuubaa mm-hmm. bi mu fi jógee sëñ Moustapha Bassirou mi fi nekk di taawam xéem mm-hmm. koo topp nañ topp woon sëñ Bassirou Mbacke ba lépp loo xam ne rek war na ko diggante ba sëñ Moustapha mu di ko taxawoo noonu toppatoo njëkkatu sëñ Bassirou képp nag sëñ Abdou Hakim mi ma lay wax jox na ko doomam jox na it sëriñ Fadilou Mbacke moom sëriñ Bassirou doom la sëriñ Issakha Mbacke sëriñ Issakha Mbacke moom sëriñ Bassirou jox na ko doom sëriñ mm. Mountakha Mbacke sëriñ Mountakha ma ñuy wax sëriñ Mountakha Guèye mm. boo demee daanaka mooy bras droit sëñ bi mm. ma nga ca moom sëriñ Bassirou Guèye moo ko jox ba ci sëriñ Cheikh Assou Fall koo indi rek jox na ko doom sëriñ Saliou sëñ Mourtada hmm. euh, sëriñ Abdoul Khadir daan am na ci ñoo xam sax daa xiir ci ñoom ba ñaari doom la leen jox la jox waaw ba ñett hmm. waaw nga xam ne hmm. jox leen da lay jox ba noppi wala bit kuwaat jox sa doom ndeysaan waaw sëñ Abdou mii ma wax euh, sëñ Sidi mii ma la wax fa la yaroo sëñ si Khadim yi fa la yaroo euh, sëriñ Khadim Gueye fa la yaroo soxna Ndeye Gueye la yaroo koy jox sëñ Abdoul moo sëriñ Khadim moo aw fas la boole moom joxutoon doom ngir ne la yaral ma delloo ma dala daan addi ay yatam la lay laaj doyloo gi mu doyloo woon sëñ Tuubaa yi àggoon na ci kon képp ku muy jox doomam ju jigéen mm. da lay xool xool borom alal mm. day xool koo xam ne sa maam Serigne Touba ko yar mm. wala sa maam Serigne jur wala sa maam bokkook Serigne Touba ci wet wala tong dongam bu mu gërëm ñi may wax ñu koy dégg mu yëkkati la jox la doomam ju jigéen nga nekk fa ànd moom di liggéeyal yàlla noonu yi la day defee woon ci njabootam bu jigéen noonu la def ci njabootam bu góor waaye mu am point am solo boo xam ne ñëpp war nañ ko jàngat ci sëñ Bassirou Gueye mooy ay yëpp ko dégg bu ma nee ay rakkam nag waxuma ñu bokkal sëñ Liggéey ja waxuma ñu bokkal sëñ Moussa ja waaye ñu bokkal Mbaye boo demoon tuuti si tàppe ci internet bi da nga xool photo yoo xam ne dañ naan la kii sëñ Moustapha Gueye moom sëñ Sooda Gueye moom sëñ Mabaabu Gueye la ci àndal ñu gën koo xam ci sëñ Moustapha Gueye waaw mooy soxna Fatou Ndiaye. Hmm. nga ñëwaat ñu man la photo wax moom Serigne Soda Gueye hmm. moom Serigne Hassan Gueye hmm. moom Serigne Babou Gueye la ci ànd. mooy ki jur sama way bu góor. wax la beneen photo nga indiwaat Serigne Cheikh Gueye Ndiakhate moom Serigne Hassan Gueye moom Serigne Babou Gueye. ay rakam yi nga xam ne dafa bokkoon ak ñoom Serigne Gueye Jemay. kenn ku ci nekk tuddee na la doom. waaye ku mu tuddee doom it lu mu mas a am sëñ Tuubaa te it sëñ Tuubaa it noonu yi lees hmm. bu la xasee doy dara dut la doy ci sa bopp yow hmm. sëñ ba sëñ ba si liggéey daal boo koy xool ci jëmmi boppam ak taalibe hmm. loolu naqaree naqaree naqaree roy ndax li tax mu naqaree roy mooy aw doxinam ci jëmmi boppam moom boo koy xool mën nga koo séen ak mbooloo mi ko wër mën nga koo xool ak dara jaam waaye xol bi sëñ Tuubaa rek la ci yëg lu mu am lu mu taaru loolu bu sañoon ma fanaan ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ko faba mhm. sëñ Tuubaa ko faba mhm. li may wax yàlla rek a tax ma di ko wax mhm. ba tax na gis nga doomam yi nga xam ne dañ koo meññ dañu leen a meññ pas-pas boobu moo nekk ci ñoom àddina fukk leen duñ xuroo ci seen alal bàyyi soxla wuñ ko ku fi nekk di sëñ Bassirou bàyyee nañ daal lépp lu sëñ Bassirou bi yor yàlla te muy génnee milliard képp ku fi nekk di sëñ Bassirou gi xëccoowuñ xëccoowuñ ak yow ab taalib ñooy ñoom ak ay ay taalib dañuy doon fi solo boo ko xam ne ak boo ko xam boo ko xam te yàlla dogal na ñun ñëpp a ko xam sëñ Moustapha gi mii fi toog tey di xalifa jaar na ci ay diggante yoo xam ne ginnaaw bi ko sëñ Moustapha Bassirou yaree tarbiye ko tarxiye ko mu ñëw bàyyam def li muy def ci moom daa topp magam sëriñ Abdou Samad Guèye soxlawul doom soxlawul kër soxlawul dara. Mm. ba ni fi sëñ am sama jógee ay rakkam yi. Mm. kenn ku ci nekk noonu la nga ne ko dam Jadi, ko dara ci suñu spaay hmm. jërëjëf xam naa dinañ ñëwaat si yow parce que bu ñu bu ñu déggee waxtaan bi yëpp mooy euh, sëñ Bassirou Gueye lépp lu mu rek jébbal Serigne Touba hmm. parce que ni mu mel si ni mu mel xol nga am ko séddale ko njabootu Serigne Bassirou gi yëpp wante séddale ko njabootu Serigne Touba gi yëpp loolu mooy firnde ni moom daray àdduna jëlu ko lu ak taalibe dinañ ñëwaat si yow baax ba dañuy ñëw si Serigne bi hmm. buñ bëggoon xam Serigne Bassirou Gueye moom tam parce que wax ni ak njabootu Serigne Bassirou Gueye da koo jébbal njabootu Serigne Bassirou ngir ñu yar ko wante bu ñu xam Serigne Gueye itam tàggat maanaam kan moo ko tàggat ku ko jàngal alxuraan ba tey jii mu toll mu toll mu tollu fii nga xam ni fa la fa la toll si ak ndawam. waaw xam naa loolu moom itam. Mhm. Eh, sëñ mat ba. Mhm. dina ci ñëw. dina ci ñëw dëgg la moom la cee gën a maîtriser ndax ginnaaw moo leen yar. Mhm. wàllu seeta jën lay doon. Eh, dafa amoon dafa amoon ak taalibe waaye taalibe doo ci boole woon xam-xam ak fulla. xam-xam ak fulla. ndax daana wax naan lu bon sax soo ko bëggee. boo amul fulla doo ko def. Mhm, dëgg daanaka naan lu bon boo ko bëggee boo amul fulla doo ko def. Mhm. sàkk ak lu baax la. Mhm. Eh, taalibe gi li muy rëy rëy rëy rëy doo ko nasewoon ak fulla li eh, sëñ sëñ sëñ Soda mi wax ci rakk bi tam muy lu mat a jàng ci yoon wi. nga xam loolu rek daanaka matoon ak yi nga xam ne yéen a bokk benn baay. kenn ku ne ngay nga tudde ko doom. ndeysaan. rakk yi nga xam ne ñoom moom la bokk sëñ Maguette Jama kenn ku te tudd na la doom. jëf ja suñ suñ suñ suñ mag ñi dañ ci àgg. Mm-hmm. dafa la leen fekk. Mm-hmm. Eh, ñaar bi itam ñi nga xam ne dafa bokk moom Cheikh Am Baabu ndax Cheikh Am Baabu seen ñaar ndey bokk ndey seen ñaari baay ñoo bokk ndey ak baay. ñoo bokk ndey ak baay Malick jur kii sëñ Maguette Jamaa jur kii. sëñ sëñ sëñ sëñ moo jur kii. Mm-hmm. Eh, kii su koy waxati. Eh, Cheikh Am Baabu. seen ñaari baay bokk ndey ak baay. dégg nga. Mm-hmm. Maguette Fadiam moo jur kii. Mm-hmm. Malick Fadiam moo jur kii. Mm-hmm. mu Cheikh Adama Sène Mbaw loolu nag si Bass Gueye du ko sàmmoon. muy lu mat jàng ci jamono ji mu fi jamono ji ñu toll ndax fexe woon na comme ni ko suñu sooree waxee ba rakkam yooyu yëpp da leen a téye woon. su toogee ñoom rek ñoo koy uuf toog ci suuf. fépp fu mu jëm ñoom lay àndal. du ko mbokkal baay rek waaye ku mbokk mbaaw rek téye woon na leen di ci loxo. téye woon na la ci loxo. tudd bi dem na ba ci biir rakkam yooyu ndax. sëriñ Cheikh Maguette tudde na ko doom. Mm-hmm. yàlla gàntal ko. Mm-hmm. sëriñ Moussa Fandiaye moom tudde na ko doom mi ngi fi. Mm-hmm. ak ñu bare bare ci rakkam ñoo xam ne nii sëriñ Cheikh Mbaw lañ. Hmm. sëriñ Cheikh Mbaw mooy sëriñ Cheikh Cheikh Adama. waaye ñoom ñaar dañoo jaayantoon dem liggéey bi. Hmm. sëriñ bi nag bokk nit ndey ak bàyyi. Hmm. bu leen fayee rek. day mel ni day mel ni ñaari bànqaas yi. day yoo xam ne nii bànqaas bu ne ci rek mën naa meññ. mën naa mën naa sax ñu tudd Cheikh Adama ak Cheikh Mbaw. ak Cheikh Mbaw ndax ndax ndax ñoom ñaar. bi ba Sëriñ tibbal ku nekk lam leen tibbal nag moo tax boo boo ci tuddee kii rek daanaka tudd nga. daanaka tudd nga ca des moom daa fexoon nag ba famille bu yëpp mu dajale leen benn. Mm-hmm. loolu lu man a jàng la. Mm-hmm. Euh, mooy euh, ñoom itam ñu ay rakkam ñu dégg leen ko nag joxoon ko ci seen bopp. Mm-hmm. toppoon ci moom. jox ko cër. moom it mu téere ni ngir yërëm leen. ngir jox ko cër. ngir mag gim leen mag. looloo taxoon seen ànd ba yomboon lool. waaye jëmi bés gi taalibi ji ñuy wax da ci boole woon ab xam-xam bu wér mo tax mu mënoon a doxee noonu ci biir ke señ ci wa ndax ñi ngi nettali ni mo dafa jeexon tak señ Basiru Mbàkke la tax mu jeex tak señ Basiru Mbàkke nag xam nga señ Basiru ko jëflante moom. señ Basiru ko jëflante moom. ndax na wax ni dama dama dama fekk ku ku neex andal mm-hmm. te yéen lim lim lim yor. Mm-hmm ba bëgg and ak mom motax mm-hmm. tax suñu suñu tuma suñu maa jox limi yor mo sëñ Basiru Mbàkke mm-hmm. wax na ni sax amna ci doomi sëñ Mbàkke jama ñoo koo xam ni mooy cant sëñ jama sëñ abdallah lañ ko sédde won way sëñ Basiru lako jox bis bi bi bi sëñ Abdoulaye yëgee loolu boo woo ko ni ko ah Cheikh Fall gi mi kat sëñ Mbàkke jama mom lako mom man lako ko tudde woon mm-hmm. mu tuub loola jël doom ju mag jébbal sëñ da na ko jamono yama koy jox sëñ Basiru de bo boo nangoon sax ma joxala ma joxala la ndeysaan wax fa mu toll woon jamono ji ci xaal bi mu toll ni ko jamono ji ma koy jox sëñ Basiru Mbàkke boo nangoon tam mu jox <laughs> ah, <laughs> loolu dañ ciy jublu ci pas-pas bu ñu amoon ci sëñ Tuubaa amoon ci sëñ Tuubaa dëgg la de amoon pas-pas ci sëñ Tuubaa mm-hmm. loolu nag jógu fi mm-hmm. Mm-hmm. ndax ñi magi taalibe ñi may nettali ni bi sëñ abdoulaye defé discours bu mag bobu daan ni mhm. tidiane ak mouride ñepp ñëpp benn lañu mu na ah man man man de duma leen yemale man day fi mu tok de seigne touba mako jox kur kur seigne touba tuubaa duma leen duma leen yemale sëñ tuubaa loolu euh, pas-pas la bu mu gëmon seigne touba tuubaa amoon ci seigne touba deug la euh, teewut sëñ abdoulaye bu ma sa ñew guddii mhm. lu mu jox ko ko mhm. ndax man seigne xeyri jaax daf ma nettali yalla ko yalla yërëm daf ma fekk ci poroxaan jamono yi nekkee ci daari tërbiye ji di tërbiye mm-hmm. ñu jigee ca tool ya toog nii ci jataayi dongo yi rek bu nu wàccee ñoo bokk feeñ fi ñu toog mm-hmm. yàlla dogal nag ma yoroon ab suppon di ko jàng jukki bi alxuraan di ko jàng ko jàng mm-hmm. suñu Cheikh Bousso moo nekkoon imaam yi Poroxaan ci jamono jooja suñu xëyri jaxate ñëw na fi ba suñu Cheikh di ko di ko bi ma fekkee ci keppaar gi ma toog ma daal ma daal di jóg nuyu ko mu ne ko kii géele sax doom suñu basi du géer suñu xëyri jaxate ah doom suñu basi géer mu ne ko waaw suñ xëy ne mu ne ma xool jukki bi ma dal ko jox jukki bi mo ne ci suñ suñ xëy jaat daan ni ma suñ Tuubaa mo yéeme moom suñ xëy jaat yalla ko yalla yéeram daan ni moom de suñu Abdou Lahad mas naa toog ba suuf sedd mu dox dem ke sëñ bés di seeti sëñ bés gi nee na bi mu ne tëll ci salle bi ndax da ko da daa miinoon sëñ bés gi miin goo xam ne moo waraloon sëñ bés gi ubbi ci ginaaw nga xam buntu bob sax mom buntu sëñ blad ngara lañ ko daal fi la sëñ Abdou Lahad jaar guddi ñaar ñëw bi mu ñëwee ci salle bi suñ xëy ne mu fekk sëñ bés gi di jàng alxuraan mu ne ko ma Basiru Géey loolu boole ak alxuraan mu ne ko xanaa sopp waaye booy dem bul ko fi baax <laughs> nga xam ne moom maanaam maanaam jàngi alxuraan géeg jàng xasida géeg lawaraat bi yëpp rek sëñ Tuubaa la ko gënal sëñ Tuubaa moo loolu ndax kilifa goo fekk <laughs> na ni kii bu doon leen lu dul ah, sëñ Tuubaa waaw moo day day rek dafa jeexoon tàkk Sëñ ba bala ko xam-xamu baatin bu bu kenn du naata be nag boo xam ne ko jëflante nit ñi mm-hmm. ba ñëpp xam ko ndeysaan foo ko masaa tudd ci jamono mm-hmm. kenn ku ne xam na xam-xam baatin mm-hmm. ndax da ko tondale woon da daka daa def ci ci fu mu ko war a defee nag euh, doo Sëñ Tuubaa mukkut Sëñ Tuubaa fekku fekku ca Sëñ Tuubaa fekku waaw doo Sëñ Tuubaa mukkut Sëñ Tuubaa fekku si ndax ci mag ñi yàlla na ko yàlla yërëm ba Idrissa Mbaye bokk na ci magi bi yi nga xam ne euh, dañoo jeexoon ci sëñ bi man ne moom ma sa nettali ndax lu lu ni ci rek. day am solo lool. fa ko jëlee nga leeral ko fa nga ko jëlee nga leeral ko dëgg la. Mm-hmm. tara bi dañuy bëgg ni. Mm-hmm. boo jëlee ci xadis da nga toxal ci diw mu toxal ci. mu toxal ci diw mm-hmm. eh, sëñ Idrissa de moo ma nettali ni mas naa am benn saan boo xam ne nii. sëñ Bass dene ko ci Idrissa kay gunge ma. kam ci toftal nag. xaj na sama xel génn ca. mu ànd ak sëñ Bass Guèye. ak sëñ Idrissa mbay ñu jëm ci jumaa ji. nee moom bu masaa di siyaare ci ci jumaa yi Tuubaa ci buntu penk bi laa jaar. dem mm-hmm. ñu jaar ci buntu penk ba. Mm-hmm. ñëw siyaare ji ku ku tali Seex Ahmadu Bamba. Mm-hmm. nee na bu mu paree mu daal ci teg Sëñ Mourou siyaare si barabu Sëñ Fallu. bu mu siyaare Sëñ Fallu ba dëpp nag bay dox bay jénn daane cay suñu borom moo xarale. daane na xam falak fole de bu ma ci kenn mën a ne suñu fallu muy tëdd la loolu suñu Idrissa Mbaye ma koy ne te ma ci ko dëgg nga xam kooku li mu doon am teel bi teel bi lépp da ko du ko du ko du ko eh, nëbbi woon baatin boo xam ne nii. Mhm. daanaka ñi jaxasoo na moom dëgg dëgg dëgg. dëgg dëgg ñoo ko mën a xam ñoo ko mën a xam dëgg la. waaw mhm. ndax am na ci yoo xam sax dañ ko mën a wax. duñ ko mën a wax dëgg ci ci ci dëgg la dëgg la waaye daal nit la koo xam ne daal. Mhm. Eh, ku neexee waxtaanee ku neexee waxtaanee ndeysaan. koo xam ne ja boole woon na bokk yëpp muy benn. bokk yëpp boole woon na leen muy benn. sëñ Moussa Fan Ndiaye mii sëñ Baye mii sëñ Soode mii di wax. soo ko masaa fekk ak moom dañu ne ay ekkal suñ Souleymane gii mi nga xam tey mooy xalifa mu Cheikh Mbaw nee ma lu lu sama mag ñi ba saa ba gi sëñ mm. leen jaaxalee man la ñu naan demal mm. su ma demee su ma ko dikkee rek mu ne Souleymane lan la mm. su ma waxee mm-hmm. ma si waaw léegi damay ñu dëgg-dëgg sëñ Bassirou Gueye muy maanaam euh, ba tey jii nii bu ko defee ñu doog a ñëw nag si màggal gi parce que xam naa temps bi a baax si màggal gi nga xam moom la ñu dëgmal bisimilah waaw léegi sëñ Bassirou li ci nekk lépp mënatu la ko wax. Mm, dëgg la waaye li ñu ci xam daal moom mënoon ko waxtaanee waaye mënatu ko jeexal. Mm. suñ bas daal nit koo xam ne ñu ko ku am taalibe la la xam waxam mm. ku bëgg mbokk la ndax mas naa am benn jour de mën a ma ma ne Cheikh Fall gii mii daal ma fas ba nga na ma ko seetal fas ba gën a baax na ma ko jox Cheikh Fall gii mu topp ci man. Cheikh Fall gii mii xam naa xam naa waxu ko ak Cheikh boo xam ne li ma ko fay xaw ma ko. ci sa rakam la. te bool ma rute na ba wàcc. kon daal Cheikh Maal maa war na soxla si gën a baax. Mm. na nga ko tànn ma ko. sa sa was moom sa bas ko yoroon. Mm. ma ko yëg ko. Mm. sëñ la ci nekk lépp mën na si ko wax. ah li nga xam ne daal moom moom laay digle daal léegi. taalibe yi nga xam ne daal noo àndoon ak moom. laa bu ñu gën a góorgóorlu. ñun taalibe yi. nan na ak góor fas yéene léegi topp sëñ te bëgg fas yeen defar màggal gi ñu bëgg jëm. muy ëllëg bi. ñu fas yéene àndandoo liggéey ndax dañoo bëgg itam liggéey ci kër gi liggéey suñu si mu ñu soññi nag taalib bi yëpp foofu taalib bi nekk bu góor ak bu jigéen ñu leen ci woo ñun ñëpp ñu bëgg ñu fas yéene jot teew fas yéene liggéey sëriñ bi ndax pastéef lañ ñu xam kon nag nañ donc yëpp nañ fas yéene àndandoo liggéey li yàlla jox asalaamaaleykum wa rahmatullah dag may joxal sëñ moom itam mu gën ñoo ñëwal tamit ci màggal gi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal la vite le 8 euh, février bi nga xam ne fa la ñu jëm ñu war koo amal si dëkk bi nga xam ne mooy Bour Gueweul ci dëkk bi ak màggal gi sabab li waaw màggal gi moom li sabab bi mu mhm. ngi sababu sëñ Bachir sëñ Bachir ndax fekke na ko ñetti at wala ñeent mhm. ci kanam mhm. ñun ñii dongo yi mu eh, awale ci daara ban wàcc juróom-ñaari dongo yoo xay kenn ku ne moo la sa sampal kër. ñuy def rek lu fa sam ci lu mel ne daayira mu xaw a gën ñun mm-hmm. dong yi mu ne ginnaaw sëñ béegul yar mm-hmm. te kër sëriñ bu ne dong yaa war a samp lu ko dul toxoo ci mm-hmm. nan jaayante samp def def màggal bi li baaxoon waa dëkk ba lañ fay bari bari bari waxuñu ko daanaka ku ku dul dong ba ñu dajaloo ba ba ba def loola ba noppi ñun dañ doon def dajaloo kàddu comme ni dong yi baaxoo yalwaan lan defoon jiw hmm. topp dëkk bi hmm. liibar kilo ba ba mu mat nu hmm. béy ko tool tool bi bu nu demee bay ko bu nu wàccee bu nu ñëwee dañuy si ba ngoon nu wàcc ñu saxoo ko ba benn bis moom sëriñ bi ñëw muy taw de nu nekk ci biti si mu ne Thierno Gassama boobu mooy bëgg nekk Thierno ñooñu def mu ne ñooñu def daayira lañu mu ne daayira boobu maa ngi ci biir maa ngi ci biir ne ko Thierno saa buñ kuy liggéeyati ku suukar ak café na nga dem ca Iba Awa boobu mooy commerçant bi na nga ko dem jox leen ko. ñu di ñu jëfandikoo. loola lam ca tudd yàlla bi ñu tudd moom sikkar rek moo nekkoon moom la sëñ bi wax ne ku ma ne ci bu bu euh, sëñ Bassirou Guèye jàngi alxuraan. Mm. ci doomam bari na ñu ko xam. Mm. man ka ka bokkaloon sëñ Sylla. Mm. mooy boo demee ci la gii ci. Ndula. Ndula mooy Touré Touré. Hmm. fa la doon jàngi. Hmm. sëñ Mahmoud Sylla. ma hmm. maag sëñ Basiiru koy juróom-ñetti at. noo ko bokk benn lal. nga ne ku ku toll ne sëñ Basiiru fu mu am juróom-ñetti at wàcc na alxuraan. wàcc na alxuraan dëgg la kooku moom ko sëñ bi waxee. jàng nag ba jàng loo xam ne bi sax sëñ Basiiru daa boole woon bi mu wàccee sax. da koo ay dongam muy muy dolli di jàng tafsir. ne ko doon jàngal ci ñëpp xam na mm-hmm. waaye nag dafa xëjul foofu mm-hmm. léegi sëñ Bassirou daal mm-hmm. lañ waxoon dim wax ko tey fii mu ne boo ne woon kenn benn sëriñ bu dox ba yàgg mu wooyi jigéenam wàcc leen ci daara sampaat ñeneen boo ne benn doone ñaar doone dëgg la dëgg soxna yore soxna muy say soxna nga daje leen wàcc leen te génne woo leen kër gi sampaat yeneen i soxna sëñ Basiru laa ko mas a déggee. laaj naa ko de adduna laa ko laaj. Mm-hmm. boobu soxna Xadi mbooloo lañ. Mm-hmm. la leen a teg fee. Mm-hmm. kenn ku ne mu wutaat keneen jox la. mu yoral la sa njël. mu yoral la sa te benn yëngu-yëngu amul kër. amul sa kër ga kon jagleel maanaam ab yare yare. mën a yaree ko moo ko ko may dëgg la. mën a yare moo ko ko may. loolu yare moom. képp ku koy ku koy def. te xam nañuy yare ku ne da nga mën a waaye yaram nag daa jafe. Hmm. xam nga luy moom lu mu baaxoo. Hmm. su demoon ci dëkk bii tey sëñ Bachir. Hmm. dikk dëkk ba nga dëkk. nga taalibeem gën faa néew doole sa kër la xam nga lu ñuy def su ñëwee Moussa Gueye lay àndal daan na ko wutandi ba mu bàyyi. dégg boo egg see nag awal sa ko jox ko kon loola sag sagal na bu ko defee ñu ne diw bi ñoom euh, sëñ bi ñu gane na ko rey na ko gàtt mhm. tax wallaahi la asim sëñ bi si waxu mhm. daa xam ne lépp lu mën a doon mhm. kii alalam da koy war a toppatoo jàngale it la ndax dëkk ba mu nekk sëñ Seex Fatsile euh, euh, ñëw na ko daan ne ko sëñ Bay ñëw na ko ne bi dama ànd ak sama nijaay daam si la mu ne ko dama lay gërëm si mm. ndax bari na taalibe yu ma am fu mm. ne maa ngi fay dem te daam si li muy li may defal mm. amu doole de waaye li may defal ci yow mii la ko gis mu ne ko waaw mu ne ko li tax kon danaa ko gërëm ci sa kanam nga xam ne lu mu am ci moom yaa tax mu ne ko ah kon ne sant naa la ndax da du la jël ne ne la da nga maa féete woo wala mu jéem a di sa taalibe déedéet da lay xiir ca sab sët kon nag sëñ Basiru mm. daal di ko wax mm. mën na maa wax fii ba suuf fii ba suuf du àggal léegi dañuy ñëwal rek ci waaye nag wàllu màggal màggal gi ñun daal di mm. béy ni ko sëñ Moussa mi waxee sëñ Basiru bi mu nee biñ ko biñ màggal defee tool boobu ma lay wax ba noppi xam nga noonu def danoo bindu lettre wax ku ni ko bëggee jox ko mu xool lettre bi daal ne ma daal di geesu man ne leen bis dana leen doon gudd wut ngeen ko ba tàyyi mën leen ko am mm. ñii la ko yàlla jagal demoon na nag ba am na yu si yëpp dem yëpp yëpp jëlul wax mm. waaye lam waxoon nekke booba mun junju na lam ma ci tegal yow moobu ma ne ko Guèye mu ne ma yow de waxuma la sëñ Cheikh Adama mm. ngeen ko tudd waaye Cheikh Bassirou sax bu la romb sëñ Cheikh mu ngi sax bu la romb mu ngi mu ngi won fi màggal gi kon lépp mënee su ko wax. a su ko wax waaye sant nañ leen yéen it. Mm. la yàlla may leen kàttan. dëgg la dañ lay jox yow tamit sëñ bi nga tàggatoo gën ñoo leeralal tamit màggal gi euh, ak dëkk bi nga xam ni fa lañ fa lañ koy màggalee côté bu mu nekk comme ça nga di tàggatoo. waaw màggal bi de sëñ bi. Mm. xam naa balaa ci dugg dañ leeral tuuti bi sëñ bi génne àdduna. Mm. mu génne àdduna comme waaw 1983. kon gënee jamono ci dëkk bu ñuy wax Bayti Gueye. Mm-hmm. di dëkk Serigne Gueye jàng. Mm-hmm. waaye nag la caa xew. Mm-hmm. ndax mooy néew bi nga xam ne ki njëkk jóge jógee Côte d'Ivoire bu indi ko fi Sénégal. bu mu yeggee xamoon na fa lay wàcce yàlla suñ borom xam ko kon mooy wilaay gis ñëpp daanaka boobu dañu ko nekk. kon màggal li tax ñun ñu volontaire ci ñun sëti Serigne Bassirou Gueye. man ci sëti Serigne Bassirou Gueye ci laay waxtaanee. ci laay wax. ñi na ñoom ñoo sos màggal waaye moom dees ko def waaye buy yegg eh, ka tàmbali moom ci jëmmi boppam ko suñu borom xam ne ni yegg sëñ Basiru nag moom xam naa ne xamoon na lii moom ndax yi am nañ ci pas bu wér boo xam ne bu sañoon tey jii du wax ne dañ koy nangu ci loxo taalibe ndax loolu mënta nekk te tegginuwul ndax ñoom ñooy ñooy njëglaay bi ñooy jiwu yi tey ñoom dañ leen di gàccee ngalaama Euh, di gàcc ngalaama suñu wayjur mhm. yi nga xam ne ñoo ñu mel ni ba tax ñu bokk ci sëñ Bassirou Gueye mhm. waaye sëñ yi daal am nañu yéene di toll ne bu ñu sañoo màggal bi mhm. dërëmu kenn na du ci dem coono kenn na du ci dem man man kenn du ci dem lépp sëñ sëñ Bassirou Gueye ñoo ko def ngir jëmmi sëñ Bassirou Gueye waaw sëñ yi nag ñoom ñu ngi ciy woo mbooleem ñi ñu bokkal Cheikh Adama Gueye ak mbooleem ñi ñu bokkal Cheikh Mababou Guèye mm. ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo bokk ñoom Serigne Malick Guèye ak mbooleem umma islam yi bépp umma yi am nañ nag départ boo xam ne fii lañ koy defee mm. ajjuma ndax ñoom dañoo war a bokk ci ñu war a jiitu ci liggéey ba mm. muy Serigne Bassirou Guèye euh, bu diisee jotee Serigne Assane yi moo yor wàllu transport bi kon képp koo xam ne bëgg ngaa dem rek na nga ko coordonné euh, bu ñu yeggee it def mooy topp ci ginnaaw suñuy way jur ànd ak taalibe yi. doon ay taalibe. ba liggéey ba sotti ñu am jaajëf. Mm, jërëjëf fañ fañ ñu tàmbalee loolu fa la ñu tàmbalee waaye fañ ñu yemloo it fa la ñu yem. jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi dañ lay jox ne tamit nga tàggatoo rek. waaw waaw Mbaye leeral programme bi Mbaye programme bi sëriñ Mbaye sëriñ sëriñ Soxna bi leeral na ko. leeral na ko. Mm. Euh, màggal gi le huit le huit février bii ñu ñëw euh, dañ koy xëyee jàng alxuraan mm. bu paree doom yi sikkar sikkul la bu ñu demee ba euh, quatorze heures ñu añ mm-hmm. bu ñu añee ba pare mboolool mi dem ci sëriñ bi mm-hmm. mu ñaax leen mm-hmm. waxtaan ak ñoom ci diine su paree yeewu leen ñu daal di delloo ak beneen yoon mag lii ren moom noonu lañ koy doxee xañ na nag yittee tax sëriñ bi doxee na ko noonu su ko defee daal ñu ngi ci woo ñëpp di leen ci seen seen seen site bi itam ñu ngi leen di sant bu baax ci di leen gërëm ci taxawaay bu rafet bii ngeen taxawaay ci màggal bi te ci ko sëñ Baye Serigne ñu waxee woon rek ñu bu ñenn ci suñuy bàyyi ak suñuy doom boo mm-hmm. xam ne yàlla ko dogal mu dal ñu ren mm-hmm. sëñ bi nga xam ne moo wutu woon sëñ Bass Guèye 1983 mm-hmm. ba 2019 2019 yàlla yàlla yëpp yokk leeral suñu doom yooyu nga xam ne nii seen bàyyi jëkk a wutu sëñ seen bàyyi mu sëñ Bassirou Guèye eh, sëñ Abdou Samad ko njëkk a wutu yàlla dogal uh, autisme bu daloon ci kaw ay doomam muy sëñ Mouhamed Guèye ak sëñ Moustapha Guèye hmm. ak ub jërabaatam hmm. sëñ Xaadim Diop xam ne ñoo defoon accident ci Masaalikul Jinaan bi yàlla moom seen bakkan hmm. ñoom it yàlla yàlla na yàlla yokk seen leer tas ñu seen barke te yërëm ne te waaye fa ci ñoom kon daal ñu ngi leen sant ñëpp tey wax ni daal ñu ngi ñaanal sëñ Moustapha mi nga xam ne moo fi nekk sëñ Bas Guèye sëñ borom bu dul faram yàggal ko fi eh, xëcc pas-pasam. Mm-hmm. ni mu yéenee liggéey suñu région mm-hmm. liggéey ko mm-hmm. ànd ko ñun ak taalibe yi. salaamaaleykum wa jërëjëf uh, ñu ngi leen sant bu baax di leen garab bu baax a baax si taxawaay bu rafet bi uh, mu ngi noonu muy sëriñ ba siiru Gueye ñu war koo amal le 8 février bii ñu jëm ñu ngi koy amalee fee nga xam ne moom mooy wërgu di dalaloon si njabootu ba Bassirou Gueye mag la mag la goo xam ne mënuñu see mënuñu mënuñu koo waxtaan xëjul sax si si bis waxumala ak ay ay seconde na mbirum télévision noonu lay demee ak site internet ci temps la ñuy dox loolu moo tax mais li ñu bëggoon a lépp xëy na waxuñu ko li ñu bëggoon a leeral tamit leeraluñ ko wante da leen jox di daje rek ba le huit allah rabbi lu bëree bëree bëree bëri dina gën a leer incha allah rabbi di sant di gërëm képp koo xam ne jàppoon na ci liggéey bi ak Babacar di nga xam ne moo dox liggéey bi ba nga xam ne ba mu sotti ñu ngi ko gërëm moom itam di sant ñëpp di gërëm ñëpp jox leen di daje ba le huit février incha allah xam ne mooy wër ku dëkku Serigne Bassirou Gueye wasalaamaaleykum wa